cas communautaire yi bi ginnaaw ba mu amee jël nañ mesures yoo am salol. la benn bi mooy euh, ki nga xam ne feebar daf ko dal ñi nga xam ne ñooy njabootam tey jii ci guddi daan leen yóbbu hôtel loolu mooy li nga xam ne moom la gouvernement bi décidé te tam moo gën dañ leen yóbbu ñëpp hôtel muy waa mat fukki nit kër euh, rakam bi nga xam ne moo ko gënoon a jege tam parce que dafa daan nekk ak moom ba mu feebaree tout ça booba xamuñu ne coronavirus ko dal moo ko jàpp euh, kooku tam dafa jege woon donc ñoonoon ñu ay contact à risque lañ ñooñu aussi dañ leen di yóbbu bu mat daal buñ ko xaymaa ci tàmbali bi parce que xamuñu fan la ñu jëm ci tàmbali bi mat la ñu mat euh, ñaar fukki nit tey ji hôtel ba la ñuy fanaani dañ libéré ñaari kër yi ñu jël leen ak suñu moyen transporter leen ñoo leen di defal lépp bu ñu demee ci hôtel ba leen di yoreel seen lépp ku ci nekk ñu yóbbu leen seen nekk Euh, xool leen euh, may leen temps ñu xool ndax dañuy développé feebar beem déet kër ga ñu tëj ko am ñu gardiennage ñu yóbbu ko police mu fay garder 24 heures sur 24 di ko surveiller parce que ay bagages ak ma seen i lépp nga fa loolu bokk na ci mesure bu ñuy jël tey beneen bi mooy euh, transport bi nii ni ñuy mel ci transport bi jaaduwul. dañuy sax fess del te te dafa nek lo xamné mënutuñ ko nangu ba taxna li ci arrêté bi wax mom lañuy appliquer tolérance dal dootuñ ko def si biir marché bi te ma delu ceci amna ay koñ yo xamné mom sa saa démé day fess dell ak ay nit lu melni market bi fuñu jaay ay portable ak yooyu sa yoo démé la fay nek ci nit ëpp jéggi dayo yoyu yooyu à partir de suba yoyu yëpp dañuy di tas point yoyu yëpp dañ di tas ba kenn dootu fa ne